fas wote woote ngir sant Serigne bejo ci wax ji mu wax suñu Serigne suñu sang soxna ayda sali ah sen Serigne la kon yeene ngi wote wo Serigne ba tay fas yéene fay matal suñu sax ngir waajal 17 avril bi ni di beus bopam ba tax na ñu ngi ci wo aduna ñu ngi wo ñepp bayu ñu kenn ñun cantaakoo ni ñoo wote bes bi ni and ko suñu sang ngir fas yéene Serigne bejo mom Serigne salu ci bes bi ni di 14 di 14 février di bésub cofeel di bes bi nga xamni si nañ koy waajalee ngir jëm si 17 avril kon ñu ngi siy woo àdduna ñu ngi siy woo ñëpp bàyyi ñu kenn di ñaan sang mu yàgg lool tànn ak jërëjëf a si sëñ